maanaam day beneen dimension boo xam dama fay nekk li ma ci li ma yóbbu ci dimension boobu mooy suma frère bi nga xam ne moo ci tëdd te ba tey jugul di ko ñaanal yàlla suñu borom tëdd boppam ba mu jug mën a nekkaat ci ay activité ndax metti na tamit depuis période boobu ba léegi mu ngi tëdd ci lal mënul jóg di ko ñaanal wér gu yaram ak tawféer loolu bokk na pël ci li gën a ci sama live li gën a basculer sama carrière loolu ci la bokk. macha allah yàlla yàlla ak pexem yàlla na ko yàlla ci boppam mu gis waaw mais yooyu noonu yëpp après léegi garaawul quoi on ça passe yàlla baax na yàlla ko yàlla gëstu yàlla fugg boppam mu ji wax jàmm Jules Bamba Samb nee na na nga yokk physique bi rek roi bi roi bi ngay allah amin amin ne conseil yu baax la te dégg naa ko bu baax yàlla baax yow kii yi sokku comme tey mbër yi boo jékki-jékki dégg mbër yi kay tey nga dégg tey mbër bii daa feebar faju ba amatul lu muy dañ koy ketal en tant que mbër yow dina la neex budul woon mbër sax du neex ndax man pël bugguma doomu aadama bu yàlla di teg jafe-jafe bëgguma doomu aadama bu am jafe-jafe bu ma la xamul sax bëgguma nga am jafe-jafe waxuma la ak nag bokk mbër di dund làmb pël gis na àdduna hmm. àdduna ku ne war ngaa sóor sa télé suba hmm. ndax bu dul ci làmb ak loo mën a yëngu yàlla mën na xëy rek teg na te boobu yaa ngi woon ci say condition yaa ngi woon say xumb xumb àdduna yaa ngi woon say kii doomu aadama bu dund ci kaw suuf del rafetal say jëf di rafetal say kàddu ngir sëkkale suba. Mm. parce que tey kenn ñaanalu ko kenn su ma frère a ngi nii tëdd Jules Balde Junior. tey feebar tey xam nga ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal suñu borom yëkkati ko parce que tey suñu morom la jeune la am doole comme ñun daan def li ñuy def di compétir di bëri di daan. tey mu ngi leen tëdd. xam nga mënalul boppam dara. dañ koy ñaanal tey yàlla suñu borom mi nga xam ne moo ko tëral fëgg boppam te lu ko waaye mun a dimbalee te yàlla tax mu dimbalee ko ko. jéego bu nekk nag ñu ko ciy def mais dañuy ñaan rek yàlla wéral ko quoi mais pël loolu nekkul lu lu ma yéene benn mbindeef ci àdduna waaw ku ku ma dégg ne dal ma xam la ak ma ñàkk laa xam damay am lu ma naqari sama biir xol mais nag yàlla mooy xool li ko neex mu koy teg jaamam yàlla na leen ko yàlla teggal rek ci ba bi amiin comme tey euh, jibi moomu nga wax ak ki nga xamante ne mooy euh, Jules Baldé Junior nee nañ tey mbëru Pikine balaa ñu doon ket tey mbëru Pikine yaa ngi foofu ay Eumeu Sène seen mag Boy Niang yow Sokh te ñun ay Ama Baldé te même bu ñu kiiwul def nañ ak mm. parce que pël ku tëdd ci kaw lal yàlla rek moo mën a fëgg boppam mu jóg boo ko joxoon ay milliards te yàlla soogul pour mu jóg du jóg fu mu tëdd comprendre nga kon ñoom acte yooyu noonu dañ ko war di def waxuñ leen ñoom ñooy faj waxuñ leen ñoom ñooy wéral yàlla mooy faj mooy wéral. mais geste. comprendre nga waaw mais dañoo war a def acte boobu noonu pour àdduna xam ne ñii. ñu ngi sóoraale ñi nga xam ne tey ñoom ñoo tax ñu nekk. Mm-hmm. yeah boobu moom dama ciy balaame CNG bu baax a baax a baax a baax bu leen neexee nag nañ sax xotti sama licence ndax wax dëgg moom ci cadre tawat ragaluma ci mais tamit loolu loolu du yoon c'est pas normal. mbër yi nekk fi di dagg licence assurance. ñu doon ñu di ketal normal boo renouvelé wul sa licence doo bëre. waaw. Ah. nga tawat ñu toog di la seetaan ñun kon ñun ban monde lañ nekk. combat xale la. combat jànku dafa Mm, ki maalaw bu pikin maalaw maalaw bu mm-hmm. pikin bu sokk maalaw bu boy ñaa nee na loolu pirib dip la sokk mu nee na maanaam dako nee na jël bu gaaw nga koy daan loolu nekk ci biir xolam la wax rek te yàlla na ko suñu borom def loolu de laay ñaan yàlla maalaw moom it borom baax la suma waay la bu pikin gépp la boo nee maalaw bu boñaa wala bu sook sax mën ngaa juum bu ñëpp la mm-hmm. man itam maa ngi koy ñaanal jàmm ndax li wax noonu tamit yéene soog jàmm moo tax mu wax ko yàlla na ko suñu borom def. d'accord aj aj nee na pourquoi Sokh du wone boppam lors lors des combats le plus. maanaam. nee na maanaam wone sa bopp ci pourquoi du wone boppam lors du combat ne mais def euh, qu'on de plus. Ah, maanaam dama war a wane lu ëpp loolu quoi maanaam. Mm, mm. non nag man wane sam bopp moo tax ñu xam ma moo tax ñu may tudd. te pël ci ay grand événement rek laa bëri. man sama mm. carrière yëpp ci ay grand événement la bëri ba ma jugee ci grand événement yi ay combat sama combat bopp laa doon bëri. maanaam combat Balla Gaye Bombardier. combat Eumeu Balla Gaye. combat Zoss Gouye Gui. combat yooyu yëpp dama ko animé dama ko animé bañ may bàyyi xel di daan ay jël yu rëy ñëpp naan booy bi booy bi maanaam man grand rendez-vous yëpp dama see wane sama bopp amul bis bu may ñëw te wane ma sama bopp muy bu ma daan ak bu ma daanoo ci bokk yem saa ba ñëw daal da ngay yëngal gëstu la dëggee rek Yékini bi ñuy bëre ma war a bëre ak Laye Pythagore combat mhm. boobu dama ko ñaat mais combat boobu noonu dama yëngal stade bi ba àdduna yëpp naan booy bi booy bi maanaam combat boobu li gën a yokk tax ma ñàkk ko sax kat ci la bokk man amul bis bu may ñëw di làkk même lamb su ma ñëw rek pour animer dañ may tudd par force damay wane sam bopp. kon neex na Ndoye nee na. loolu mu wax noonu peut-être xam nga fu mu waxee dégg naa ko mooy maanaam soog combat yi mu perte moom la warul perte peut-être moo tax mu waxee foofu. d'accord comme que dégg nga de baax na mbir yàlla suñu borom la quoi maa ngi defar loolu noonu te xool naa erreur yi jàngat li ma ko xañ maay sama ruq nekkaat sama bopp rek yàlla baax na. d'accord ndoy bu pikin nee na ngay woor nag te bàyyi or gàlle bi ay sokk yaa ma rus lool. ndooy ndooy war wax lool ci ay kii de ndooy lii ay kii la ay international yuy dem ak yooyu war a dugg wax de ndooy <laughs> mais nag garaaw ndooy mbala la pël non man léegi mooy lool de <laughs> ñaanuma yàlla yeewu di gis njaboot gi tamit di ñàkk woor ci seen kanam ah man tiitoon naa. ndax nit moom ci képp ku faatu yàlla da lay laaj noo téye woon sa njaboot. dëgg te kilifa day wane exemple te léegi yaar yaakaar naa yor naa soxna yor doom duma xale bu ndaw tey war naa a wane exemple boo xam ne ñoom roy waaye lañ ñu la demee. Ndiaye Talla a na euh, nga defal ñu analyse entre Papa Sow ak Papa Sow ak Hmm. waaw non loolu combat la moom combat bu rëy la te combat la boo xam ne mun na dàq sax ci année bi bu fekkee dina am ren. waaw hmm. su amee ren moom mun na dàq ci année bi parce que xam nga lu tax. Hmm. Siteu dafa nekk xale am lu mu wane ci làmb. comprendre def ay performance yu baax. mu xaw a sooxe am combat yu mu jël yàlla dogal mu perte ko te combat yooyu mu perte ay grand événement la. Mm. Papa Sow mu nekk champion ku ne xam na Papa Sow doon daanaanam ku ko daan ci làmb rek da nga koo war a daan mais du da nga koo muñ moo tax nga daan mm. mu jugee écurie Fass créé écurie boppam boppam beneen défi ci moom mm. comprendre nga Papa Sow man xam naa ne tey bakkanam moo koy gënal daanu combat am ak Siteu Siteu itam dafa am fu mu jugee bakkanam moo koy gënal daanu ci combat boobu noonu maanaam combat boobu noonu ku si teelul rek mun ngaa juum ndax ñaari mbër yoo xam ne seen bakkan la ñuy indaale ci combat. maanaam bu doon bu yomb dañuy rayante faaw kenn daan mais dañuy hmm. bu doy waar sax bu doy waar bu doy waar a doy waar. mu nekk ndaama ak ñoom. waaw ma wax la nag benn affaire gars yi ñu ngi naan Siteu moo ëpp avantage ci xeex bi Siteu musul ëpp avantage ci xeex. ndax Papa hmm. Sow ndaama la mais daa bagaar ak ñëpp ñi mu ñëpp daa bagaar ñoom. moo xam da nga koy daan wala du la daan mais bagaar bu set wicc la Papa di bagaar te Siteu gis nañ ni tamit am na performance yu mu yokk ndax dem na États-Unis def na MMA bi mu ngi mu ngi xeex lu jaar yoon kon tey combat boobu noonu ñoom ñaar dina métti torop torop torop du sedd ci kenn ci ñoom ñaar. bu mystique bi bëriwul. non mystique bi même bu bëree ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am na ginnaaw nag ma wax la ko tey ngay dégg Papa Sow kenn ëpp ko ginnaaw. man li mm. may xam naa ko bu baax si tey itam am na ginnaaw ndax am ginnaaw bokk na ci li ko yóbbu fii mu yegg ci làmb mm. waaw ndax si te pesé wul deux cent kilos pesé wul cent cinquante kilos te tey mu ngi bëri fi ñoom Papa Sow di bëri. Mm. waaw kon tey champion lañ ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ. que le meilleur gagne. d' na Sokh nee na ana dugub. mu ne. nee ana dugub. ana dugub. waaw. dugub jar na de fi mu toll kay ak weeru koor gii nii daa manqué sax bi mu ne maa ngi doon woote dëkk ba nii pour ñu yónnee ma benn tonne mais dañoo tëj yoon yi. <laughs> Tapha Kandji nee na merci beaucoup champion yal na la yàlla may ndam lu sedd guy. amin ci barki yonent bi moom tam maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex baax a baax a baax ci barki yonent bi. ndooy nee na rek moo fi mbër ah loolu rëy na di li nekk ci biir xolam la yàlla na ko yàlla fay xolam ci barki yonent bi yéene bi ñu am si man ci kàttanu yàlla dama koy mootali aaj mm-hmm. nee na soq Reug Reug moo la man waaw loolu moom li nekk ci xelam la wax li nekk ci xelam ak fi mu far la woone mais nag Reug Reug moo mën soq moom loolu waa amul problème loolu mën na ko wax nii rek mais man pour man góor yàlla mënul. Mhm. maam Njaay nee na soq yaa man Reug Reug bilaay Reug day wax rek. waaw kooku tamit li nekk ci xelam la wax li nekk ci xolam la wax parce que gis nga tey nit boo ko faralee. buñ tegoon soq bala am na commentaire yoo xam ne dootuma ko jottali. jottali yëpp. parce que loolu mooy tax mu neex bu ma nit saaga sax ne ma diw saaga na la. xanaatu ma comprendre nga parce parce que xam nga lu tax pël man li may wax rek chaque jour yàlla saakul ku ñëpp faral yàlla saakul ku ñëpp bëgg. Hmm. yàlla saakul ku amul ay noon yàlla saakul ku ñëpp di wax ci moom lu rafet. comprend nga ba ñuy wax maak ak yow ba léegi ñii ñu ngi wax lu naaj ci Sokh ñii ñu ngi wax fi ñu faree comprendre nga maanaam ñi faral Sokh dañ duñ saaga sook duñ wax lu ñaaw ci Sokh lu baax li soq def rek la ñuy gis maanaam même ñi faral lu soq sax buñ saagaa soq ne ma diw saaga na la bu ma bu ma tontu la ci li ma la ciy tontu amul problème loolu mooy tax waxtaan bi neex wax ma réponse yëpp. Mhm. Euh, Sénégal Forum moom tamit nee na Sokh fait partie de la rêve qu'on dise la vérité Sokh a le pour adversaire roi des arènes de la part de waa Balla Gaye 2. maanaam lu mu wax pël français ko jàngee noonu nu mu mom noonu. moom ci boppam ni ko bindee sax moo doy waar. nee na. soo ko partie de la relève. qu'on se dise la vérité sokku àla mhm. maanaam say potentiel mhm. xam naa la bëgg a bind say potentiel pour devenir roi des arènes de la part de waa Balla Gaye loolu bu ko waatee du lakk de mhm. sama doon roi des arènes ci làmb moom ni ma leere bu ma sama dugg àjjana leere woon noonu ma xaru tey dem dem